Assalamualaikum adina, Assalamualaikum Senegal. Warga kep ñu ngi leen di bégg di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko ñaan suñu bopp di wax ne mbir xeweti na def ngeen lu rëy def ngeen affaire goree di Karamba le médecin borom jinne yi mi nga xamante ne mooy doomu Mbour l'enfant de Petite cote def lu rëy ci équipe nationale de senegal def lu rëy ci Coupe d'Afrique def lu rëy qualification coupe de monde jam ñaajo ngeen dem Égypte ñu noq leen 1-0 mu ne woo leen seen baay mu defati jaloore fédération bi ñu wooko ko ñaata lañ lay fay mu ne bu leen ma fay dara man doomu sénégalais la pire may sénégalais suma ma defee li may def ba pare lépp lu ma yelloo yeneen xool loo leen ma yéene ngeen defal ma ko comme ko woo ngeen ma dinaa leen xaar jam ñaajo match bi benn bal la maa koy dugal dem leen YouTube ngeen xool vidéo yi benn bal la maa koy dugal man la Messi karamba borom jinne yi ne benn bal la man maa koy dugal ci mbaali te naar bu ci lang ma dugalaale la ci mbaali ne képp kuy sëriñ teel sa loxo nga dem toog parce que bu ngeen xamoon dara du ngeen dem Egypte ñu leen door dóor match Égypte bi dafa tëdd di nelaw na jaayantal naa Sénégal ba mu jël coupe d'Afrique kenn woowuma téléphone damay tëdd nelaw ngeen dem Egypte ñu nokk leen 1-0 mu mer génn def vidéo ne woo leen seen baay mu defati jaloore comme niñ ko woowe woon ci coupe d'Afrique ñu woo ko téléphone mu xëy def vidéo ne woo nañ ma dinaa leen xaar jam ñaajo bu leen ma defal dara lépp maa koy defal sama bopp ngir war na leen gënu leen maa bëgg Sénégal la waxoon yëpp mu confirmer ko ba mu leer nañ lu doy nu coupe du monde ñuy dem ñu jël ay sëriñu courtier ay fenkat ay tànnkatu ceeb ay ñoo xamante ne nii kenn xamul lu ñu doon ah gëmuñu sax seen bopp bay gëm yàlla gëmuñu seen bopp bay gëm yàlla waxuma laa bay man li ñuy def ngeen bàyyi fi karamba borom jinne yi waxatuñu bàyyi bi woo leen ko sax téléphone woo ko sax téléphone pour wax ak moom muy sénégalais en tant que doomu réew mi ngeen ne yéen ay sénégalais yéen yéen yéen fédération bi bëgg ngeen senegal indi coupe bi yéen a yey yéen a yey yéen yéen yéen a yey parce que kumba amul nday kumba amul nday ngeen di doxee yéen Sénégal talo len dara lu politique di dul rek di fen rek di fen rek rew mi doye woo ko dara lu dul lek xaalis kenn ko ci nek poste buñ la tek auto lu ko avancer noo lek xaalis ngay out yena ñak jom karamba da sur keul barki dem boo njaay même pas deux semaines la dakh nar bi 80 quelques millions 80 quelques millions ci football ngeen antana jël koku bayyi ko fi oh, ba pare waxatuñu bayyi bi woo leen ko sax téléphone yéen a ñàkk jom yéen ay jaam yéen a goreel yéen a bon yéen dimbali leen jeunesse bu ndaw bi jeunesse bi nga xamante ne dañu war a jóg ëllëg pour am ci leneen leneen leneen lu ñu war a dund koo ci gis mu ngi yar ngandi biir ñii di yar ay ngandi lex fen rek fen rek ak lekk riba ngeen fi nekkee nekk woo leen fi dara lu dul fen ak lekk riba yéen a ñàkk jom